doon lii commentaire yi dañuy réer lu bari quoi parce que ñu bari di ngi doon plaigner wu ci musique bi ñu def muy musique wu El Hadj Ndiaye wér-gu-yaram def après ñu dem ba ni comme dañuy def ñi te nit ñi ñu génne musique bi daal bëgguñu ko si ñu dindi ko euh, ñu si bëri tamit euh, di plaigner wu ci dag dañuy bëgg daal professeur moom di wax loolu ñu bëgg quoi léegi te accepté nañ leen ko comme nag dañoo changé format bi ñu doon defee vidéo yi ñu ne nag léegi comme euh, tamit booy def mbir pour nit ki nit ki ne la ni lay bëggee nga koy defee tamit nga fekk su ko wàññiwul dara moo gën nga continuer di ko defee ni ko bëggee voilà loolu moo waral léegi ñu changé format bi ni fas yéene defee programme bi eh, vidéo bi ñuy njëkk def ci programme bi bees nag dañ koy commencé waat zéro vidéo yi ñu defoon pour explication yi gën a leer ñi ci gën a bëgg a xamee gën cee xamee ñi ci bëgg a jànge mën cee jànge pour ñëpp mën cee jëriñu moo tax dañ koy tàmbalewaat ci ndoxum city muy feebar boo xamante ni feebar bu sonal Sénégal yi kon dañuy ñëw ak professeur Ousmane Ndiaye ginnaaw bañ ko bàyyi mu nuyoo ñu laaj ko professeur Ousmane Ndiaye lan mooy ndoxum siti salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Pape maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokku internet yëpp yi nga xamante ni ñuy suivre mm-hmm. ci sama xalaat TV bi mm-hmm. waaw comme ni nga ko waxee rek defe naa expliquer expliquer nga lépp nit ñi comprendre nañ mm-hmm. eh, li ñu tax a rek mooy defar pour nit ñi mën a jëriñu donc comme ni nga ko expliqué rek bu fekkee nag ñi nga xamante ni ñoo taxoon ñuy jóg nee nañ nii lañ ko bëggee rek mm-hmm. nga fekk si leen ci loolo mm-hmm. loolu tamit ñu ngi la ciy sant di la ci ci gërëm ci mm-hmm. initiative boobu. donc comme ni ko waxee rek Pape ñu néew ci ndoxu siti eh, ndoxu siti mu nekk feebar boo xam ni. mag ñi dañ daan wax ni mooy ndeyu feebar yi. maanaam moo jur feebar yëpp. maanaam feebar boo gis rek. ndoxu siti mi ngi ci ginnaawam. léegi nag am na ñoo xam ne sax ci fajkat yi dañuy wax ni nit mhm. fu mu fekk ak lu ko même dara dal war na faju ndoxu siti mhm. am ñoo xam ne dem du bañ ni ak kuy faju garab goo mënti faju mhm. dañ cee war a boole garabu ndoxu siti am na ñoo wax loolu am ñoo xam ne jàpp nañ ni nit ki même bu ko dara dal dafa war di faj ndoxu siti ndax ndoxu siti dafa nekk loo xam ne Pape non seulement dafa bëri ci li Sénégalais yi ci doomu aadama yi mu bëri tamit ci ñi nga xamante ne xëy na mi ci ñoom te du manifesté wu. te mhm. loolu nag mooy danger bi su fekkoonte ni mi ngi manifesté wu am na ñoo xam ne moom day génn seen yaram loolu dinañ ci ñëwaat mais ñi ñi nga xamante ni dañoo am ndoxu siti te génnul seen yaram ñooñu ñooy ëpp danger parfois. Mhm. parce que dañuy toog rek ne aw ma ndoxu siti fekk mi leen di lor boobu moo ci gën a graaw ndoxu siti comme ni ñu ko waxee feebar la boo xam ne c'est héréditaire maanaam lu ci ëpp mën nañ ni day wala day topp famille bi. Mhm. day topp nit ñi. moo taxoon sax wax nañ ko ci yeneen vidéo yi mag ñi naan toppum sët yi. Mhm. da lay topp ba topp say comme que mag ñi nag dégguñu woon olof xamuñu woon luy maladie héréditaire moo taxoon ñuy wax loolu ñu tuddee ko toppum sët yi sët yi say sët ñu dem nag ba olof yàq ko naan toppum siti comprendre donc noonu la demee léegi bu ko defee nag mu nekk feebar boo xam ne mën nañ ni feebaru dafa composé wu ñaari parti mhm. dafa am parti partie boo xamante ne mën nga ni bi day nekk ci deret parfois deretu doomu aadama di wër moom nekk ci biir deret ji loolu moo tax mu nekk feebar bu naqaree faj ci doomu aadama mm-hmm. beneen bi mu nekk feebar boo xam tamit non seulement mën na nekk si deret ji mais mën na génnaat ci yaram bi mi symptôme yi nga xamante ni ma boo gisee ni keroog bi nga xam ne kii dafa amee ndoxu siti mm-hmm. donc kon loolu tax ndoxu siti nekk loo xamante ni lu lu garaaw la ci doomu aadama mm-hmm. donc ci tënk buñ doon résumé comme que dañu bañ ñu vidéo yu gudd ñu bëgg nit ñi jariñoo dañ naan képp kuy dund na nga nekk africain wala sénégalais rek exemple tey yow nga sentir ni am nga ndoxu ak nga ñàkk sentir ni amoo ndoxu siti mooy nga gëm ni amoo ndoxu siti yow ndoxu siti mi ngi lay sonal donc yow moom gëmu ni amoo ndoxu siti sax yaa war a gën a faju ji ndoxu siti mhm. léegi nag loolu dinañ ko ex ci biir explication yeneen vidéo yi dinañ ko expliquer lan moo tax mhm. ki nga xamante ni moom yëg na ni am benn ndoxu siti war a dem faju ji ndoxu siti mhm. parce que ki ko am moom garaawul parce que xam na ne am na kooku moom naa ne discuter pas mais ki ko am ba pare te naa lànk ne am ko jàpp ne am ko kooku war a faju ji looloo tax mu nekk feebar boo xam ne Pape dafa nekk feebar bu bu garaaw ci ndoxu siti mhm. donc ndoxu siti nag en général ñaari façon yooyu lay manifesté woo mhm. soit muy dal nit ki mu génn ci yaram yi ñu xam ne kii am na ndoxu aussi mu nekk loo xamante ni eh, dafa feebar eh, dafa làqu ci biir yaram bi mhm. dafa làqu ci biir yaram bi dal na doomu aadama bi mel nit muñ ko gis en général daal loolu lañ mën di wax ni ci tënk en général mooy ndoxu ndoxu siti jërëjëf professeur yaakaar naa loolu kon leeral kon ñi seetaan dañ leen di jox rendez-vous deuxième partie bi nga xamante ni question bi mooy nekk maanaam euh, ndoxum siti maanaam nan lay lan moo koy tax muy dal nit ak bu dalee nit yan mandarga la ko nit mën a xam ne ndoxum siti dal na ko kon ñu ngi lay jox rendez-vous ci deuxième partie bi jërëjëf